mbokk yi dal leen ak jàmm te ngeen abonné te like te partagé ci chaîne bi di Tivaouane 24 TV seenu diine ji seenu lislaam bi seen bi leen di jëriñ Tivaouane 24 TV seen bi dox saa su ngir dab seen bànneex xew mi am loo bëgg a siiwal moo xam programme la wala lu mu mënti doon jokkoo wala ak Tivaouane 24 TV ci numéro yi l'impuissance des hommes lu doy waar ci impuissance sexuelle maanaam néew kàttan jàngoro jooju jeex na ci biir réew mi ndax daf koy faj ba mu wér doxum faj ndoxum siti it ak lii di saa néew nag waxaalewuma ko garab gu baax kàngoog numéro bi 77 245 36 39 nga wér péng rajim bismillahi على من أرسل رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم القائل طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه النجوم الهادين ومن ترسم خطاهم إلى يوم الدين mbokk jullit yi fi teew tabarakallahu ñu ngi tàmbali liggéey bi nga xam ni date historique lay doon à retenir dimanche 13 août 2023 fii ci quartier Galle ci diwaanu Kébémer quartier Gala ci Kébémer munaasaba boo xam ni l'islam bi diine ji réew mi ak sous région bi ba ci diaspora bi yëpp dat biñ doon xaar ànd ko tabarakallahu doomu gox bi muy al oustaz Modou Fall ci ndigalu ay kilifaam ànd ko oustaz Modou Fall ay sëriñam ànd ko oustaz Modou Fall ay waajuram ca ka jiitu tabarakallahu toog nii ci kaw présidium officiel bi di suñu bàyyi suñu wéjur alxaaji asfan alwaladu sirru abi nit ki fa muy jóge di fa jage di fa jagee su ko jigee du fa jóge ku ne ñaan nga yàlla am ci sa kër sa njaboot di dox di wax di réagir ci sa tur loolu la la yàlla defar papa yàlla yàgg sa doom sa njaboot ba mu koy dugal muy jàng alquran tabaarakallahu mu toll ci wut métier ñu wutal ko métier bu dagan mu cay dundee lu lew tukki jot yàlla dogal ko ci moom mu dugg dans la diaspora nekk réewu Italie te foyowul diineem foyowul tariqam foyowul réewum ñibbi si jot mu ñëw ànd ak góoru diine yëpp ba kuy wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah tabarakallahu di jël sa yéeney xol di ko wekk ci jëmm ji nga xam ni mooy sa doom Oustaz Modou Fall muy fierté zahin fa maydaanul xayaati zihaabun wa amal tanal inna alquruda xaraamun sabiquuna tasallamu hëmal huda wal ghaibuna raqam waaye Corneille waxoon na ca France ni aux âmes bien nées la valeur de l'homme n'attend point le nombre des années am fulu ba kenn du la foree am xam-xam ci li ngay def ba kenn du la nax am fit té a jël ses responsabilités ba kenn du la xaru nga daw doylu ba kenn du la jënd waye ñu nango am kilifa ba kenn du ma wax na daal kooku mooy Oustaz Modou Fall fete suba baax la taat yu baax bàyyaa sa dom ji wal fata in shabahat afaaluhu afaala walidihi fa laysa bi salimin nga jur ko tabaarakallaahu mu ni waaye cosaan bi laay delloowaat ca Kébémer su ma demee ca quartier Gala fa nga xam ni diine ñor na leen Kébémer bu maam Cheikh Cheikh ma Cheikh Saad Kébémer bu Cheikh Taar Buya Kébémer tabaarakallaahu bu maam Mori Dimba Kébémer bu maam Mor Anta Sam moqat maam Sidil Haaji Malik waaye Kébémer bu sëriñ Xaadim Awa Ba Mouhamadou Bara Xaadim Modou Fall ubbi daara woo julitu yàlla yëpp ñu leen tey tabarakallahu képp ku ma am ngay xarit di wóllëre boo ma fekkee ci kanamu Baye Ass Fall mi nga xam ni tabarakallahu mooy sama wiyu danaa sawar a nettali la parcours ba ma doon dox fii ci réew mi ba ma doon ci diaspora bi parcours ma yàlla boole ak nit ñu baax damay El Hadj Abdoul Aziz Mbaye moom femme muy wax naan nit ki fa muy jógee di fa jógee di fa jógee su waaye muy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni allamani llah benn barakata maala kabir El Hadj Abdoul Aziz Mbaye na bi ci teelu dënn mu la gën a jege yàlla gën laa yàgg ci àdduna lu mel ni Oustaz Modou Fall baabu yar ak teggin ngay wuti waaye boobu nangoo toppi ak dégg ndigal Oustaz Modou loolu moo la may tey Sénégal wuy si tabaarakallaahu ni ñu fas yéene programme bi ñu dugg ci orateur yi taala di présenté waale yéen délégation yi As ñu wax la ni tabaarakallaahu réew mépp ñëw nañu Serigne Fallou Mbacké mi ngi nii toog di njabootu mu Serigne Massamba ku ne xam wii yoon ak i ci diine jéeg taara ji mi ngi nii ñoy xamal ni allah seigne Cheikh Ahmed Tidiane sar bu Cheikh Seydi mohammed mounsou sar bu mom mu tabarak allah bu budi mi ngi ni tok budi nak su ñëwee mën naa teewal tiwaawan ndax budi ak tabarak allah tashabahu in lam takun mislahu ndax in tashabuha bil kirami rabbaahu kon sëñ Cheikh Ahmed Tidiane sar bu toge ànd tabarak allah Seydina Cheikh ترون سيد الشيخ احمد تيجان المكتوم نيو في ريسبونسابل مورال بودا ايرتو المستشدين والمستشدات مولاي السيد الشيخ محمد المصطفى ابن سيد الشيخ احمد تيجان المكتوم مرا شيخ تهواني تبارك الله جكل سيد احمد سار تبارك الله بوجوغي لوغو نيو تبارك الله موكو كير ديني تي ريجون بي تيو نانيو waaye Baye As ñu lay xamal ni këru liggéeyukaay bi nga xam ni Oustaz Modou Fall ci la ko ñëpp ràññee muy groupe Futurs média ki jël kàddu ci ñoom dana ñëw cant ak ngërëm du ñàkk jëlu ci président directeur général bu groupe Futurs Médias di Youssou Ndour waaye bu kàddu jotee Hadj Bouba Ndour mi ngi nii toog ànd ak délégation bu mag jóge ci groupe GFM waaye El Hadj Aziz Mbaye Mame Fall. di sagu hadara mam Seydil Hadji malik di kenn ci groupe dana jël kàddu gi bokkul ak bu ñu demee bagetaay bi kulóoru ñu toog bokk yëpp toog oustaz Pape Hann ci kàddu ga mu war a yëkkati jëmale ko ci mbokku tëjee yi nga xam ni ñoo seq le desk religieux du groupe Futurs média di tabarakallah groupe GFM oustaz Pape Hann dana ko yëkkati tabarakallah papa ñu lay nuyuwaat bu baax di wax ni léegi dañuy gàttal foofu. ñu ubbi jataay bi ci alquran faqra'u ma tayassara min alquran ayat min zikril hakim ki koy jàng mooy alxaaji Malick Dieng incha allahu taala ñu bokk xerawlu ko ndax ku woote daara tudd ko Madinatu Rasul say bokk toog say xarit toog say wóolal toog say soppe jóge ci biir réew mi à travers tous les coins et régions du Sénégal say xarit say wóolal jóge à travers la sous-région ak ñu jóge ba bitim réew inshallah taala bi day nuyu day tax ko nga suñu ñu ci la coordonnatrice de Badaya muy bureau d'assistance aux et au diplômés arabes muy soxna Awa Diop moom nga xam ni la yàlla dogal mu toog nii ci kaw bëñ bi waaye teewal muluki temporel et spirituel le président de la république son excellence monsieur Macky Sall bëgg daara et la dinañ ci ñëwaat El Hadj Malick taala jëlal kàddu le ministre.